xasida gi nga xam ni sëriñ bi def koo def tënke ko fi chahri ramadana aama al sasin mu wax ni sunu boroom tabaraka wa taala dafa bégal ñi ñi siyaare si kii woy xasida gi mbé li bégal googu mu leen bégal nag ci la woy xasida gi ngir jot li leen mbégte moom yi allahu tabaraka wa زوار ناظم هذه القصيدة وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات معا في شهر رمضان هاما ألسسن موي تيوارو كور أتوم 1331 تقعد دي تلا دفعون خسيدة جي وحن سنو بروم بيقلنا نيو دي زيارسي كي وي خسيدة جي تيوارو كور بكتما مستين تبا جوت لنكو من تعمل خسيدة جي فاز الذين حافظوا على صيام شهر به uxliqa baabun lil iyaam mu ni euh, ñi nga xam ni wattu nañu wattu nañu di woor weeru koor texe nañu ndax weer la woo xam ni euh, dañ ciy tëj bépp buntu ayib bépp bunt bu war a mën a indil nit ki ayib dañ koy tëj ci weer woowu kon ak texe ñeel na ñi nga xam ni wattu nañu weer woowu ci woor ko dal jey tek ni yarawna afdal futur fi al lxubuur danañ gis ngeen ji ndogu buñ duggé ci seni bamél wa fi qiyamati ak buñ démé ba ca bisu taxaway ba danañ fa gis ngeen ji ndogu minal muxnil kabir lu bayé ko ci yàlla mi aji womal yàlla mi aji ré teg te ni shahida xaaliqul wara lissaa'imin fi ramadana bi ridaahu lqaa'imin wax na ne suñ borom day seereel na ñi woor weeru koor di taxaw guddi yi na leen ngërëmam nga xam ni kon euh, fonk bëccëg yi di ko woor te guddi yi loo ci mën nga taxaw ko euh, ginnaaw sunu boroom seeral na ñi koy def ngërëmam te ngërëmul yàlla mooy li gën a rëy ci lu ab jullit war a sàkku ndax wa ridwaanu minallaahi akbar la alxuraan wax mu saxal ne mbooleem ñi nga xam danañu woor weer wi di taxaw guddi yi sunu boroom seeral na leen ngërëmam kon loolu ba tey wenn bayit la woo xam ne war nañ ca jànge ak góor lu ci biir weeru koor ndax ngërëmul yàlla lool yi yàlla saxal ni ñoo ñi la ko fa bàyyil ñu mu boole nu ca yàlla na nu ci yàlla defal kàttan ci barke Cheikh Xadim mu teg ci ni xibaatuhum inda al ilahi waafira naalul muna fi darajaat al axira mu wax ni seeni may di lu rëy lay doon lu baree bari lay doon fa yàlla danañ am seeni mébét yi ñu mébétoon ci àdduna yëpp yët ànd ak daraja al rudda li xayrihim xasaabu naari mboolem ñoom ñooñu di góorgóorlu di woor weeru koor wi sunu boroom dana leen sori lal mbugalum sawara te duñ ko jëndee ab dërëm baa ñu koy jëndee ab dinar rafaahum bi ramadan rafiu yàlla mi aji yëkkatee moo yëkkati julli yi woor weeru koor ci biir weeru ci weeru koor nafaahum bi salawaati nafiu dana leen jariñ julli ya julli ci biir woor koor wi sunu borom dana leen ca jariñ jariñ li gën a màgg maddalahum mun an nufuusi mu nan na foosil baaqi mu ne yàlla mi aji des dana leen jox lépp ay bakkan daan mébét zul aradina sabi wetti baax yi te yàlla moomu di aji des mooy borom juróom-ñaari suuf yi mooy borom juróom-ñaari asamaan yi diyaafatul baaqi la dal jinaani tam xoo ana asawmi bimtinaani mu ni nganale ga sunu boroom di ganale eh, ay jaamam ca aljanna di dana far coonab koor ba nit woor ajru lladi maa indahu laa yanfadu munu yoolub yàlla mi nga xam ni la ne fa moom du jax mukk ajrun kabirun yool bu réerée la boo xam ni maataraahu nafadu ak jeex du ko gaar nafahu siyaami shahri fi daarayni yakfiikum al aarayni wa naarayni mu ne njëriñul weer woor weeru koor ci àdduna ak alaxira dana leen fegal ñaari gàcce yi muy gàcce gi àdduna ak alaxira dana leen fegal it ñaari sawara yi muy sawara àdduna ak alaxira teg ca ne abadtumullah alkarima al akrama bi xayri shahrin xad yaqudul karama jaamu ngeen yàlla mi nga xam ne ku tedd la mooy ki gën a tedd jaamu ngeen ko ci ngen ji weer woo xam ne dana leen wommatal teraanga ila siwaakum tantahi niiraan kon na ngeen gëm na ngeen am yaqiin ci ne sawara moom feneen lay jëm fu dul ci yéen ñi nga xam ni jafanu ngeen ci di weer weer ker yowmal qiyaamati kadal xusraan naka noonu pertement yi kuy pert yaay perte waaye yéen ñi saxaloon weer weeru koor te sellal ko yéen perte moom mucc ngeen ci malektu mun nu foo safin nahaari yàlla dimbale na leen ba moom ngeen seeni bakkan ci bëccëg yi waaye nag yan xooli xayrikum daw intihaari ñi nga xam ne dañoo jog ngir gëdd ku dég ku ci aw yoon yi feneen lay jublu fu dul ci yéen ñi nga xam ne saxaloon ngeen woor weeru ko abwaabu jannati naim futtihat lissaa'imina wax na ne bunti jannatu naim ubbil nañu ko ñi doon woor والجميع انفتحت بولم بنت عجني أبكن نيرنيني لكم لدى الفطور واللقاء يا قوم فرحتان بالتقاء يين سموند أم جن ناري بكت بكت من بوين دوك بوين دوك دنجن دجاج موم من بكت ما تدسنا بوين دم بدجاج سن بروم دنجن دجاج موم waaye sa taclamuuna anna rabbakum karim da ngeen xam nag ne seen borom day ku tedd la wa anna indahu ujuuran la karim da ngeen xamit ne am na yool yu dul jax mukk ay pay yoo xam du jax mukk shakartumullaha ala shahri siyaam sant ngeen seen borom ci woor weeru koor sa tadxuluuna jannatan duna iyaam da ngeen dugg aljanna ci lu dul benn ayib kon xasida gi sëriñ Tuubaa def ko bégale ñi ko daan siyaare si ci weeru koor ak ñi ko siyaare si wut sax ci jullit yi góor yi ak yu jigéen yi ñépp mu boole leen bégal leen ci mbégte yooyu nga xam ne sunu boroom dig na ko képp ku fonk weeru koor farlu ci di ko woor ma daaneel ko waxtaan ngir bëgg ñu def ko mu di sunu yóbbal ci jafandu ci weer wi te fonk ko te warmaal ko te ko su ni sëñ bay jaxate nag muñ ku ku muñul ko man kooree njariñ moo di aw yiw waaye kenn du ko muñ ku dul ku gëm yàlla gëm yonen ba seenu ca pay yal yàlla boole ci ñi ko gëm gëm gu dëggu yal yàlla boole ci ñi gëm yonente bi ngëm gu dëggu yal na yàlla boole ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi nangu seenu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa